bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyoo tey jaare bu baax di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou xalifa général suñu borom guddal fanam te wéral ko bàyyi ko ci sunu kanam ba ay naanam yëpp mat ci doole yi Sëñ Tuubaa bokk jullit yi bokk taaliba yi foofu waay nekk di topp jataay bi ñu ngi leen di jaare di leen jox seen wàccuwaay bu baax ni ngeen ko xamee ci émission bii di attu xasiida ñu koy di def jamono bu ne di ci ànd ak mbooleem jànkatu xasaay di fu mën a nekk tey nag ñu indi leen daanaan lu mag loo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi rawatina fii ci Touba mu fekk mbaax sëriñ Ngagne njaay jànkatu xasaayit di jàmbaar lool ci eeru mag ñi ñu fas yéene ànd ak moom tey ci njàngum xasida ak waxtaan ak moom ci doxinam ci njàng meeg muy doxe ci baas yi sëñ Ngagne ñu ngi lay nuyu di la ziare bu baax. sëñ Baara ñu ngi lay fay bu baax di nuyu sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu mboolem ku ñuy seetaan di ñaan yàlla na jàmm am ci réew mi ci barke xasida yi bismillahi rahmani rahimi mawaibu nafia fil madai yasafi bismil ilahi yanmuluhai bila manahi walantiyaay amdan li rabbi xayril murabbi قد رام قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفوري وهو النشير من وفداي لو اقتربي بلا اقتربي لو ختابي ما اعتدائي لك ردائي لك سناي لك تجاي ما اعتدائي borom Tuuba isaan jërëjëf sëñ Ngagne masha Allah kon nag ñoo ko gisandoo ku dégg njàng mi xam ne macha allah maîtrisé na air bi ci njàngum Baye Abdou Khadir Seye euh, sëñ Ngañ xam naa ko dañu tàmbali waxtaan wi ci fu sëñ Ngañ cosaanoo ci wàllu mbokk ak yooyu sëñ Ngañ fan mooy cosaanam. sama cosaan mu ngi Saalum waaw foofu la cosaanoo man ak sama waajur góor ah, yàlla dogal ñi sama waajur daan ànd ak sëñ Abdou Khadir Seye ca Saalum yàlla dogal ñu. ñibbi si Tuubaa nag euh, fi la jàngee alxuraan fi la it toppee sëñ Bara Faye mi nga xam ne daan na ànd ak sama waajuru góor. ñi la xam ñëpp xam na sëñ Gandiaye euh, xereñte gi mu am ci eeru Baye du Khadir loolu dafa jaaxal ñu bari ndax eer bi màgg na màgg goo xam ne barkeel barkeel goo xam ne ñi koy jàng bari na mën naa ne léegi ñi ëpp ci gone yi Baye Abdou Khadir lañ gën a am cofeel sax daanaka ci di ko roy ci jamono bi ñu toll waaye suñ borom jëfal la ci ak jagle nag. dafa ci ak jege lool ba ñi xamum njàng di la bàyyi xel ci jamono bu ne gis nan ni nga xereñe ci air bi mu xaw a jaaxal ñu bari nag loolu doonoon la wala. ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou Khadre Seye euh, sama waajuru góor da daan topp bokkoon ci ñooñam nga xam ne maanaam man nga ne ndono la ndax sama waajuru góor mook Abdou Khadre Seye ñoo daan ànd waaw daanaka ndono la ci ñun ñu itam ñu judd ci euh, air bi dëkk kër sëñ ma sëñ Massamba di kër sëñ Mahamadan sëñ Mahmadan Jobbe moo doonoon sëriñu sëriñ Abdou Khari Sey daanaka ko xam eh, njàngum ko sëñ Mahmadan di nga xam sëñ Abdou Khari Sey yàlla dogal ñu bokk foofu ci kër sëñ ma sàmba sëñ Abdou Khari Sey doonoon jàngkat boo xam ne moo doonoon jàngkat kër sëñ ma sàmba ma itam bii ma juddoo fekk sama waajur daan ànd ak sëñ Abdou Khari Sey ma itam ci laa eh, ci laa judd ci air bi di ko roy waaw moo waral ñu cosaanoo ci biir kër sëñ Mahmadan waaye yow jote nga fekkante Baye Abdou Khadir wala jot leen fi fekkante. waaw Baye Abdou Khadir Seye nag moom daa mel ni aw fatom sax bi ma ko bi ma ko bi ma ko gisee yaakaar naa 2015 euh, la ndax fekkante ak moom jamono moom sëñ Abdou Khadir bi ma ko gisee yàggul ndax euh, doomam ju jigéen ku ñuy wax am caatam moom moo njëkk a won fatu sëñ Abdou Khadir Seye ki ma fekkante leen nga xam ne mooy sëñ Baara Faye nga xam ne da daan. moo ko daan tàmbalil bu waree fanaanee sëñ Baara Faye moo koy tàmbali sëñ Baara Faye moomu nag laa tombeel jamono yàlla dogal moom bu daan jàng jël ma teg ma ci kanamam nga xam ne bi ma xàmmee rek damaa daal di maîtriser njàng mi. yow Baye Baara Faye nga daan siifur wala wala wala wala sëñ Abdou Khadir nga daan siifur. waaw Baye Baara nag laa daan siifur ndax sëñ Abdou Xaadir Sey fekkante wu moom jamono moo tax waaw sëñ Baara Faye moom laa doon suivre moom laa tombeel muy jàng moom Baye Baara daa amoon air yi boppam ci air yi Baye Abdou Khadir Seye wala moom Baye Abdou Khadir la daan roy waaw Baye Baara Faye moom euh, danoon roy sëñ Abdou Khadir Seye comme ni ma demee ak suñu nga xam ne maanaam damaa ne ci ëttam di ko roy ba yàlla dogal mu jël programme yi léegi dem féetale ma ko ma di ko jàng noonu la demee woon comme suñu Abdou nga xam ne maanaam moo ko daan tàmbalil bu waree tàmbali une heure sëñ euh, minuit sëñ Abdou sëñ Baara Faye tàmbali ba deux heures sëñ Abdou Khadir tàmbali trois heures ba bët set noonu la ko daan def. xam nga jamono ji ñu toll njàngum léegi ni mu laaj nga xam ne yëngu bi day bari ak euh, li laaj li baas yi di laaj ci yenn yëngu yi ak air mag ñooñu nga xam ne daanaka ñi xamum njàng wala mag ñi rek ñooy dëgg xam dëgg-dëgg air bi ndax dina yomb ci jamono boobu yomboon na ci ngay dem ci baas yu mag yi di jàng air bi ñu war laa diglu. waaw jamono yooyu moom mën naa ne yomboon na waaye jafewoon na nag yomboon na waaye jafewoon na ndax njàngum suñu Abdou Khari moom ñi ma gis ñi ñi ñi di ko mën koo jàng da ngay judd ci kër gi bokk ci kër sëñ Mahmadaan mën koo roy waaye léegi nag tasaaroo na ba nga xam ne mbokki taalibe yi ñi ñi ngi ci barkeelu waaw waaye man damaa juddi ci kër sëñ Mahmadaan nga xam ne njàng mi fi mu dëkk fi laa juddoo loolu moo waral ma man ci li ma ci mën a ko si néew waaye nag li may wax xam naa ñi may seetaan mën a seere ñi miin sam njàng xam na ne ni ma ko waxee léegi air bi yaatu na waaye nag am na am na am na am na cër bu la ci yàlla jox loolu lan moo ci sa secret ba heure boo yëkkatee air bi rek xel yi xam ne ñi ko rey bari na waaye jagle gi nga ci am ko am waaw loolu mooy comme comme li ma la wax nag ndax njàngam sëñ airu sëñ Abdou Khadre Sy xóot na xóot goo xam ne maanaam dégg rek mënut a tax nga mën a man lépp faw nga dund ko euh, judd ci ndax air bi de yéeme na yéeme goo xam ne daal maanaam du dégg rek ci nga ci nga ko mën a xam ci nga ko mën a manee daal daa nga jël ay son yi Baye Abdou Khadir di ko déglu ginnaaw fekkante wu leen wala di Baye Bara Faye rek nga daan suivre mosoo suivre Baye Abdou Khadir. waaw dama daan fanaan ci Baye baara fay muy fanaane ay guddi fu mel ni ay Touba Mbeela ay Kéré ay Touba Sorong dëkk yu bëri sëñ Bara fay yàgg naa fa fanaan ak moom booba maa ngi toll ci ay fukki at ak ñaar ay fukki at ak ñett nga xam ne moom bu ñu sampee micro bi fi ñu samp micro bi foofu laay toog ci kanamam. fekk na ma nekk ci njàng mi l'an 2000 waaw fekk na ma maanaam may yor sama programme yi bopp waaye. nga tàmbali di jàng di jël say programme di di ko fanaane. l'an 2000 moom fekk na may jàng sama programme yi bopp ndax bi ma gën a doon tout tànk maanaam doon naa jàng njàng mi nga xam ne sama waajur góor laa daan àndal damay jàng ba mu yàgg sax may gëmëntoog yooyu booba air bi yor naa ko waaye as bi mëtagu mëtewu ko mëtewu ko yàlla dogal na nag maanaam bi may ànd sëñ Baara Fay may ne ci kanam ci laa mënee lu bëri ba bi mu demee ba nga xam ne maanaam moom sëñ Bara Faye programme yi mu daan jàng léegi man maa koy jàng. léegi programme yi sëñ Bara Faye yaa koy jàng. maa koy jàng. léegi bu amee bu la Baye Bara Faye joxe programme fekk nit ñi bëgg la ñoo xam ne du jaar ci Baye Bara dañuy ñëw ci yow nooy def. waaw loolu moom xam nga programme yi sëñ Bara Faye moom dafa nekk programme yi cosaan ci kilifa yi ndax moom njàngum kilifa la yor ndax dafa bokk ci kër di leen jàngal daan na jàngal ñëpp nag waaye comme mooy ci moom lay tënku. ndax fi mu nekk nii ginnaaw maa ko fi nekkal te moom féete na mag eh, sama programme yi bopp moom comme que man lañ bëgg di ma jàngaloo maa koy pousse ba mën koo jàng jàng ko. ndeysaan macha allah wax na dëgg loolu ñu ko xam ñëpp xam ne noonu la demee ndax eh, ginnaaw Baye Abdou Khadir Seye Baye Baara fay moo fi nekkoon ci ki dundal air bi yor njàng Baye Abdou Khadir ginnaaw Baye Baara itam air yi air air bi daanaka ci kër gi li ci ëpp ci programme yi moom mii moo k yor. programme bu Baye Baara Baye Baara mën a dem léegi Baye Baara war a dem te mënut dem ndax xaw gee doon mag ak yooyu sëñ Gëñ la fa yabal kon loolu am nañ ci lu ñu leer léegi da ngaa menaceur wala ku la soxla. waaw menaceur moom daanaka jamono ji ñu toll moo ko laaj moo tax ñu am ko bu yàgg ndax organisation boo nekkee ay nit ñëpp di la soxla faw nga am menaceur ndax bu fekkente ni jamono ji rëb na rëb goo xam ne looy duggit amoo menaceur day xaw a jafe ndax di nga war a tàmbali fii première heure war a tàmbali fii deuxième heure xamal ma la léegi nag su fekkente ni nag. Euh, da nga joxe sa bopp danañ la mën a organiser lépp ndax da nga da da nga bëgg ñaan ñu ne la doo ñaan nga war a fanaani fee retard fa ay heure loolu lépp nag ministère moo ko mën a organiser waaye du yow jàngkat bi. ku la soxla woon tey bëgg laa jàngaloo fan lay jaar. waaw ku ñu soxla woon tey bëgguñoo ñoo jàngaloo euh, am na koo xamante ni moom mooy moom moo yor loolu moom waaw bu ko defee moom numéro am soo ko jëlee moom 76 la 536. Euh, 69 55. waaw kon baax na léegi kon bu ko defee dañuy duggaat ci njàngum xasida mi rek bu ko defee nga mayal nu ay bayti xasida ñu continuer waxtaan. rafaxna ilal maahi lesi xan maal usna madiyan ajiban yoo jilul sajan wal wasna عباداتنا فخار عبادات خيرنا وبالله من إبليس زما ذكره الأذنى عباداتنا فخار عبادات خيرنا وبالله من إبليس زما ذكره الأذنى مع الآل والعذاب ترا ورداني سريعني لا توبا ودني وإلمي رفعنا إلى الماء لشيخا مع الأذنى مدينا جيبا يخجل السجع والوسنا برنا من الأمراض إنا مرادنا بأم دائما آزا سيادة والأسنى يقيني يقيني ترك أمداي مرسل إلى الخلق ترا وهو من خيره أثنى عباداتنا فاقد عبادات خيرنا وبالله من إبليس ما سكره الأسنى أعوذ برب الخلق من سر خلقي دواما وبرحمن موبي لسنا لخير الورى ينومدي وخدمتي بذكرناك من طيب المكس وسقنا إذا ما تلونا الآية قرآن ربنا لنا خاد خير الخلق من ربه ركنا ركنا وخانا بخير ذكري ما خير مرسلي abiisu nafa iblisa wal makra wa diqna widaadi li rabbil alamin lesi lana bi xayril wara xatabal muksa wal maxna li xayril wara al muxtaara ma la yunaaluhu la dallaay maxluqin wa man yaqlihi junna lana xaadal muxtaar wara min ilayna kitaaban azizan san fi saari bi ma sanna yusalli bi taslimi ala nuuri kalkali wa jismi walil jannati ala xatawil usna yusalli bi taslimi ala nuuri kalkali wa jismi walil jannati ala xatawil usna xaala seexul xadiim raamoo masiiri ilaa njurbel hmm. la daala sa sillaw ayanoo sirra maa fii sirri maa raamoo fa sayru mawtun alaa maana sa wadda way noo leeb xaaw nay jërëjëf borom Tuuba macha allah sëñ neex na lool kon xam naa dañuy duggaat ci waxtaan wi rek ndax sëñ am na air boppam wala air ba Abdou Khadir lay jàng waaw sunu air bopp nag moom yàlla dogal na maanaam duñ ko jàng ndax ñun dañoo nekk koo xam ne njàng mi dañ ci moomatu suñu bopp kër sëñ Mahmadane rek euh, njàngu Abdou Khadre Seye rek duñ ko jéem sax suñu eeri bopp moom duñ ko jéem ndax suñ santuñ ñu ko tey moomuñ ci suñu bopp ndigal daan la sëñ gañ di dox te ndigal lañ ko jox mooy mu jàng eeru kër gi rek eeru sëñ Abdou Khadre waaw ndax sëñ ngeen dina di génn ci àll bi comme tournée ni ñu ko suñu mbokki jànkat yi di defee di dem ci àll bi di fa am ay weer ak ay fan ak yooyu waaw loolu moom am na ndax am nañ programme yoo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp di ko jàng yi nga xam ne dañ ko doon ne ci sëñ Abdou Khadre Seye ñu di ko jàng ak yi nga xam ne ku dégg suñu sunu son walla nga gis suñu vidéo da nga ñu jàngaloo mu dem ba yaatu waaw moo tax daanaka njàng moom fi mu ne yaatu na ci bëri bëri kon daan sëñ Ngagne mi am ay bâche si boppam yoo xam ne day génn ci àll bi di ko fanaane waaw loolu moom bëri na moom wax dëgg yàlla ban la say programme ëppee ah, ah, bëri na biir Touba bëri na Saalum bëri na ci Mbàkke Bawol ak waaw programme bi moom bu bëggee tënk ah, fi nga xamante ni maanaam fi lay fi lay fi lañ koy yemale rek day day day kii ndax njàng mi yaatu goo xam ne fiñ fi dem lépp mënuñu ko lim moom wax dëgg yàlla macha am nga kuréel waaw kuréel moom wax dëgg yàlla am nañ ko moom. xam ne heure boo jógee ñu ànd ak yow. waaw kuréel moom ca daara ja la woon ba léegi ñoo xam ne man ak ñoom ñoo daan ànd di aw ji sëñ Baara Faye. macha allah loolu leer na lool léegi sëñ Gagne moom boole na njàng mi ak métier wala wala day jàng rek comme ni ko suñ mbokki jàngkat yi defee ci ñeneen ñi. waaw njàng mi moom maanaam bi biñ ci ubbeekoo gud moom maanaam daawuñu liggéey waaye biñ ci ubbeekoo. maanaam bi bi bi bi nga si ne maanaam ubbiku nañ ci boole nañ kook dara. loolu nu ma ko mën a dégg ndax dama daan gis jànkat yi dañuy wax ne bi ñu door daanañ ko booleeg métier bi ñu demee ba njàng nangu seen i seen seen métier nga xam ne mënatuñ ko booleeg métier ndax li lañ ci soxla ñu bàyyi seen métier fii te njàng mi waaye bi ngay tàmbali dawoo dawoo dawoo dawoo liggéey bi nga demee ba ba ca kanam nga tàmbali liggéey noonu nu ma ko mën a dégg. waaw njàng mi moom bi ma ciy door sëñ baar aw ma woon métier waaye bi ma demee ba ci biir njàng mi nag métier dikkal na ma fi waaw waaye yàqul ci njàng mi dara nag. loolu loolu loolu nu mu demee noonu métier mi muy ànd ak njàng mi la wala métier ban façon métier la ci métier yi. métier mi nag moom entrepreneur la. waaw waaw dab nañu ci biir njàng mi nga xam ne daanaka moom it yaatu na ci lool ñu bari ñu ngi koy def lool. xam ne sëñ Ndiagne daan yor na métier moo xam ne même bu jàngul day xëy ci métier. waaw bu ma jàngiwul damay xëy bu ma jàngee ba ñëw nag damay xëy di topp fi ma war a dem yëpp ci sama liggéey ma di fa dem waaw macha allah macha allah léegi loolu looy wax jamono fi njàng mi tollee nga xam ne gone yi dañoo xaw a mel lu xaw a gannaawal métier mi ci jàngkat yi ñeneen ñi waaw xam nga maanaam comme ça métier mi da nga ciy dugg foo xam ne maanaam li ma lay wax ne la da damaa dab ba ci barab bii nga xam ne maa fi ne fii nga ma fekk tey moom maa ko liggéey fii fii yaa ko liggéey waaw fii nga ma fekk nii tey maa ko liggéey wax dëgg yàlla fii de moom macha allah waaw fii nii maa ko liggéey njàng mi guddi la liggéey bi bëccëg la ndax ñun suñ boroom danoo may xereñ goo xam ne maanaam dënn boo xam ne alxuraan tàbbi na ci xasaay tàbbi ci maanaam lu mu bëgg a def rek ci àdduna da mën na ko def ci la ñu métier mi dabee nag waaye bi ñuy tàmbali di njàng njàng mi njàng mi rek lañu dëgmal ba man ko nag métier dam ñu ci biir. da ngaa jugoon daan pour jàngum jàng yow spécial. waaw damaa jugoon jàngum jàng ba yàlla dogal. ñi ma daan dem ñu di ma jàngalum njàng ñooñu jébbal ma seeni programme da ngaa génn sa kër sa kër jur spécial dem féete ji fa ngay jàngeem jàng wala wala da ngaa ne woon ci kër gi ki lay jàngalum jàng heure bu la soxlaa nga bàyyi sa yitte fekk waaw ki may jàngalum jàng dafa tuddee sama baay doom sama baay tuddee ko doom kan baay baa dafa yoon waaw xam nga dañoo jaxasoo moom tuddee na ab taawam sama papa sama papa it tuddee ko ab taawam moo tax ñoom ñaar ñu jaxasoo woon moo tax nag maanaam ma judd ci biir topp njàng mi bi ma demee ba nga xamante ni njàng mi moom lay topp dama ko topp ba ba man ko soo ko ñëw métier dam ma ci biir nag ba ni ma la ni ma la ko mën a xamalee nii mooy fii ñu nekk nii yàlla dogal na ñun ñoo ko liggéey léegi doo wax gone yi nga xam ne nangu nu daanaka fonk métier bi lañ ko war a fonke nga soññi leen xam ne jàng ma naan ak métier waaw xam nga sëñ Tuubaa moom ni mu ñu digal mooy jàmm yàlla ak liggéey liggéey dafa baax ci góor yàlla dana ko dimbali ndax xasida yi sëñ Tuubaa ba mu koy bind da cee sonnoon lool fitnawu ci natt bu ne fekk ko ca léegi ñun dañ ciy tedd ñun bu baax te loolu sëñ Tuubaa defalu ko woon boppam taalibeem yi la ko defaloon kon suñ ci nekkee te bëgg a déglu ndigalam nañ na nabi ci dara di sonn sonn gi ñu ciy sonn jàppee jàppee ko comme ni nga xam ne sëñ bi nga xam ne moom lañ yaakaar ñu tarbiyee suñ bopp nag ci suñ jëmm yi ak suñ roo yi di liggéeyal suñ bopp lu ñu am ak di bëggal taalibi Sëñ Tuubaa ci xaside yi ci liñ man waaw. macha allah sëñ Gagne daa ne waxtaan wi amoon na solo lool waaye waxtu wi dab nañu te xam naa ko bu ko defee da nga def kàddu tàggatoo rek. waaw maa ngi nuyu bu baax mbooleem ku ñuy seetaan di sant it eh, yow mi nga xam ne yaa ñëwoon tey fii fekk ma fi eh, di sant eh, jëmm ji nga àndal moom it maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm. di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan suñ sëriñ bi sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñoo ngi koy ñaan sëriñ bi di ko dagaan ci barke xaside de mu mel ni sant naa ñi nga xamante ni maanaam ñooy samay soppe di béggee njàng mi man sax man naa ne jàngkati xisaay di ñooy samay soppe ndax fu ma dajee ñoom ñaare lum gàtt-gàtt bu ma bëggee yeewee ko sax ñoo naan ma jàngal ma eeru sëñ Abdou Khadre Seye ndax ñoom ñëpp dañoo maase ci di ko sopp kon ñoom itam aw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal ndax li naan joxe daraja du wàññi ci sa daraja dara waaye dañoo baax bëgg njàng mi ñoom itam maa ngi leen sant bu jërëjëf. waaw kay jërëjëf ñoo ko déggandoo doonu ñu àndoon ak Serigne Ngagne Ndiaye jànkatu xasaayit ni ma ko waxee bi ñu tàmbali rek doon koo xam ne ku yàlla may ci eeru mag ñi la eeru Baye Abdou Khadir Seye di koo xam ne ku ku képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg njàngum mag ñi boo boo ñëwee ci moom li nga bëgg a dégg lépp da ko dégg ndax yàlla may na ko ci loolu macha di siyaare bu baax te ñi say ni àndaloon di ñaan ci barke Sëñ Tuubaa leen jox di dégg beneen jotaay madiyana ji ban yoo jilul sa jaawal wasna